dalal toon ñun ñi wax ni ñëpp ñu ngi ci. deug la ku mm. wo téléphone mëss nga dégg musique. Mm. kenn ku nekk fa nga tok je mm. parle à tous les auditeurs du Sénégal. kan mo mës wo nit. way mam góor génn. donc nekkul ci benn plateforme. bo xam ni sur le plan numérique. parce que liy dëgg mooy orange sax boo fekkee ne dafa fay dafa jox xaalis ne. bi droit numérique la. mooy ñi ñu utiliser par exemple je donne un exemple. ci dalal toon et consort yow muy artiste bi. mën nga xam ñaata la yoon la la la la la la teg mën nga xam ñaata yoon la la la la yóbbu mën nga xam euh, ñaata lañ joxe. c'est-à-dire lu vérifiable la. Mhm. lu vérifiable du lu ñuy taxaw di wax naan du dëgg ak du leneen ci yow laa jëm si du dëgg ak du leneen. du dëgg. maam góor il faut qu'on gagne temps parce que père Maam Góor maam góor maam góor. maam góor xaw ma kañ la xewoon mais daa xewul nag.

Et la et personnes qui Fenek, fait par mois mm. mm. et lay par mois mm. d'accord ah. c'est bon je pense qu'on a été clair merci merci Matar voilà xam nga moom mii di wax buñ dugg ci polémique waaw d'accord waaw dëggu ba dañuy waxtaan waaw xam nga moom dafa wax ni maam góor yow xewatuloo hmm. bois di ngay joué xaw ma lan Samba Tandiaye hmm. eh, non non artiste boo gis am na non non artiste boo gis am nañ actualité waaw d'accord xam lay joué xam ñaata mais di nga ma déglu waaw dama lay déglu non dama lay dama lay déglu waaw dama may déglu waaw lay man mhm. tey jii mhm. yow Exides yow mi ñu invité mhm. man j'ai ton chaque jour su may joué. Mhm. tu reçois mes SMS. absolument vrai ou faux. absolument je reçois su fekkee damay fen rajo laa nekk en direct dama koy recevoir. bokk naa ci ñi ëpp luy joué fii. je sais que ni tu joues régulièrement xam nga artiste bi. waaw waxuñu muy joué mu am deux cent personnes wala mu mm. am vingt personnes. mais yaa ngi joué li am solo mooy spectacle bu mu def. ah non non non. non même non premier juuma ngi. non même même. mi ngi juum maa ngi comprendre lu tax mu naan fay ñu ko mais hein? Matar Matar Matar d'accord bàyyi ko mu wax après nga jël. bëggul ñu leeral bagage yi mu leer. ak ah, na leer si